ñun nag dañu nekk ci benn tiis boo xamante ne daal nekk si njàqare jaaxle lool ndax dafa am sunu mbokk yoo xamante ne dañoo demoon géej séri léegi bi ñu demee géej séri nag après ñu paan bi ñu paanee nag ba beneen gaal gi di leen jël si nag après ñooñu nga xamante ne dem nañu doon leen jël si ba léegi kenn déggul ci ñoom benn nouvelle boobaak léegi ça fait plus ci tey 18 jours ci kenn gisagu leen boobu ba léegi. demuñu woon pour immigrer dañoo demoon ngir daani seen doole dañoo demoon seri waaw dañoo dañoo yor ay mbaali ser di ser léegi bi ñu demee paan am benn gaal goo xamante ne da leen a taf mu ne leen su ma leen lengewee sama essence du ñu doyee pour teeral leen léegi da ngeen di wàccee benn mool ci gaal gi comme ça bu ñu teeree comme que programme na leen mu jël si gaal mu jël ñëw seet si leen mu jël si leen léegi nag kooku bi mu jëlee gaal ñëw fekk gaal gi daal di fay fekku leen fa mu daal di teeraat wax ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci tefes après ci la ñoom Papa Diop tëmbee ñoom it daal di dem di leen seet gisuñu leen mu jaaxal ñu lool jaaxal ñu lool ndax instant bii nii ñooñu ñëpp ñu nekkoon si gaal gi doon leen seet ay responsable de famille lañu ñi nga xamante ne tamit dañoo nekkoon si gaal gi di nappi ay responsable de famille ñu ay nit yaakaar leen ñu am soxna xam nga am ay am di jàmm vraiment te état bi boobu léegi biñ ñoom biñ fa ñëwee bi ñu fa ñëwee dañ ne dinañu seeti xale yi mais ñoom bi ñu waxee ne dañuy seete xale yi ñun jour boobu tëmb nañu daw nañu cent vingt kilomètres ci biir géej gi gisuñu marine bi di def benn manœuvre vraiment gisuñu marine bi di def benn manœuvre te laaj nañu yeneen gaal yi ba xam gis ngeen marine bi di def manœuvre ñoom ñu ne gisuñu marine bi di def manœuvre waxuma ne nag ne marine bi deful manœuvre de mais ñun gisuñu leen ñuy def manœuvre te parents booy yi tamit mettre mettre ñu leen au courant que ne kat mbir mi fi mu toll daal waxuñu leen ko loolu moo ñu ci xaw a jaaxal daal. ñi njëkkoon dem cinq personnes lañu ñi mu jee dem di six muy au nombre de onze personnes may laaj Sénégal xanaa dafa am ñoo xamante dañoo nekk ci kaw am ñoo xamante ne dañoo nekk ci suuf ndax affaire île bi nga xamante ni île de serpent yi tourisme yooyu nga xamante ne dañoo faa amoon drame affaire boobu bi mu amee ñoom Sori Kaba ak ay Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñëpp jóg dem secourir leen léegi suñuy mbokki mool yi réer si géej gi ça fait plus de dix huit jours dix huit jours waxuñu ñu ci dara. te ñoom dañu ne dañoo dañuy jóg pour seeti waxuñu ñu ci dara loolu moo ci xaw a jaaxal te lii lépp ñoom ñoo ñu ko yóbbee ñoom ñoo jàpp géej gi yëpp jaay ko j'ai j'ai les j'ai les preuves portable preuve yi dama ko am surmon mon portable te mbéjum kanam nag kurpañu borom moom moo koy fajal boppam am na lenn loo xamante ne trop c'est trop ba instant bi nii may waxee yow am na ay gaal yoo xamante ne ñi ngi tëmbee Yoff ñi tëmbee Kayar pour jéem a xool naka la ñuy def ba yooyu yam ci seen zone bañ a ñëw ci suñuy zone parce que bu fekkente ne bàyyi nañ leen comme ça ñuy ñëw nii di napp di napp mais ñun lan lañ dañuy dema dema dema dem ba dootuñu amati luñ lekk boobu ba léegi man maa ngi bind ay lettres di ko déposer à la présidence gis naa benn collaborateur bu collaborateur Mimi Touré daal ne ko fexeel ma def le tout daal ba sama lettre bi nga joxal ma ko euh, la présidente Mimi Touré mu jot seen ñu gisee président bi wax ko li nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel parce que ministre am yii ñu fiy teg Aminata Mbengue ngay sax commencé woon na di rencontrer les vrais acteurs de la pêche di wax ak ñom waxum pêcheur cartable mais les vrais acteurs de la pêche Aminata Mbengue Ndiaye commencé na won doon waxtaan ak doon waxtaan ak ñom mais après ñu dindi fa yóbbu ko au conseil daal di fi andi Aline Sow xam nga ñi ngi def le tout pour gis leen mais may ñu buntu bi dañoo amul sax accès au ministère de la pêche amuñu fa accès ñun les vrais acteurs de la pêche amuñu fa accès lool moo xawa jaaxal te suñu problème. Il existe, tant que un représentant qui est devenu daf au ministère de la pêche. ba vous may wax chaque jour le ministre bi Aline Sow nous na fa 2 millions 2 millions Aline Ndoye xam nga 2 millions mais nous dépensé nañu ci recherche plus de 5 millions ci ay sarax ci ay jënd essence xam nga dépassé nañ ci ay 5 millions. dañu bëgg gouvernement bi limiter bateau yi les balais. C'est loolu que bëgg. ñu bàyyi contrat de pêche yi tamit ñuy signé di ko signé di ko signé waaw loolu rek lañ bëgg quoi.